seetal loolu ma ni ko kon nga jàng arab bu duuf bañ a jàng arab bu yarax bi nga xam ni bu ko nit dee wax doo xam ay chinois lay làkk walla lu muy làkk parce arab bu duuf bi rek moo am solo waaw yàlla mu dem di wax ci làmmiñ ba bëgg ci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 ndax langue yi ci dess yépp ñu doxal dañu tricher man xam dañu tricher yenn dañu précipiter xam naa bu ko suñu ba ci biir dañuy dañuy bañ otage langue bi Victor Hugo ay Molière nous kenn xamul ñoom dañu mujj langue duñu otage langue bi ñoom ñëpp ci mais al-lugha al-arabiyya waajal nañ ko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 bi taxoon mu ni góor ñëpp maa leen ëpp éloquence waaw yonent bi wax na ko bés te moom itam alxuraan na ko ëpp éloquence seetal lool waxtaan ak fontu baaxul ah